nit ñi nekk ci assemblée yi saaga ndey nit ñi yónnee ay jigéen ay Coura Macky yónnee ay Fatou Temp jox ay euh, ay ay Kaliphone wëlbatiku jox keneen ak keneen ñuy menacer askan bi am une arrogance bu kenn xamul ñu leen di jàpp ak ay xaalis yu dul jeex seen kër yi di fa sàcc ay un milliard ah ñuy defar ay ay passeport diplomatique faux passeport diplomatique ñuy taxaw di saaga di wax lu leen neex ci jaamu yàlla yi di saaga ndey nit ñi dara lañ ci fekk te ku fay ñu tëj la ci kaso yi ñoom benn côté lu ñu leen neex wax ils à l'aise ku leen porter plainte plainte bi du aboutir te ñoom kuñ porter plainte balaa 17 heures ñu jël si la ah ñu arrogant ku wax ñun la waa toogal foofu bañ tëjaat sa ndey ci kaso bi yow bañ fekk la foofu yow dañ lay tëjaat ñu taxaw mu mel ne dafa am ñaari Sénégal Sénégal buñ protégé ak Sénégal boo xam ne mu ngi sur la sellette à tout moment moom mën na dee wala mu dem kaso loolu dafa war continuer loolu dafa war a continuer kan moo ñemee taxaw ne du Sénégal bii la ñuy dund tout le ne Sénégal boobu la ñuy dund Sénégal boobu mooy suñu réalité ñun tey dafa am benn sénégalais bu ñu jël pousse leen ne leen ne leen da ngeen am xalaat yu wuuteeg ñun suñuy xalaat donc dinañ leen teg pression boo xam ni dootu leen xaj ci réew mi. tey bu booy jaaree géej ci géej gi daw di daw di daw mais bu mu leen jaaxal bu mu jaaxal kenn tout s'explique boo noyyootul sa réew amatoo jàmm sa réew mënatoo def choix bi nga bëgg ñu appeler la ko appliquer la ko gisatoo sa bopp ci décision justice yi. gisatoo sa bopp ci dara dara dara ci réew mi financement bu amee boo bokkul sax ci ay parti politique yow financement yooyu doo ci am mais boo yooyu bu fan la ñuy jëlee espoir buñ demoon sax am benn leader leader ba indiwaat ci ñoom espoir bañ jàpp ci leader ba ni waaw kay kii moom jàpp nañ que ni dina indiwaat ñu jël leader boobu ray wala ñu tëj wala ñu def comme ni ñu def ñoom Thomas Sankara Mamadou Dia ñu fexe ñu ko faxamee boo yooyu fu ñu jëlee espoir booy ni ñu def ba duñ jaar ci géej gi nañu waxante dëgg. désespoir moo tax ñu jaar ci géej gi échec boo xam ne kenn mënu ko mënuñoo toog sax di ci waxtaan maanaam nit ñi ku xool sax lii échec bii ñoom échec bi ñu am ci immigration bi booy yi nombre de morts yi waroon na tax ñu sanctionné leen votre sanction boo xamante si ni dañ leen di sanctionné wala ñoom lu ñu wax askan bi gëm safaan bi lu ñu woote askan bi bàyyi leen fi dem wuy ji safaan bi parce que bu ñu xoolee ñaata bakkan rek ñoo dee ndax seen cuune ndax seen ay détournement de fonds ndax seen ñàkk a jox priorité askan bi bu ñu xooloon ci loolu askan bi da leen war a boycotté da leen war a boycotté ba ñu yëkka ni mere nañ leen au nom de booy yooyu yëpp dee ci géej gi maa ngi gis ay nit naan ñu xamal lan ak lan du ma dugg sax ci détail yooyu parce que da ngay ree ba sonn ay diversion la ay booy yi xam nga jo euh, bato yi booy yee leen ni fay opposition yi yooyu du ma si dugg quoi ça c'est des débats yoo xam ni c'est tellement écœurant du ma si duggu quoi mais li li dem loo booy ci géej yi par centaine par milliers xam nañ lan la désespoir la dëkk bi mayu ñu leen dara lu leen man ka ne suba dina baax boo nangoo géej gi nangu teer yi jox ko ñeneen ñeneen nga jox leen teer yi ah? booy di xëy bëgg liggéey ñu liggéey location bi fàtt leen ñu toll ci bëgg jabar sañu ñoo takk jabar ndax la cherté de la vie ñi si am jabar dañuy dem ba fatt fàtt fatt affaire yi metti ñu mus nombre de divorce yi kenn xamul nu mu toll booy yi xëy di gën a angoissé di gën a stressé booy yi xëy di gën a jombi di gën a jàpp seen cugeel yi di wokk ndax xamatuñu fu ñuy dem booy yi bis bu ñuy daw di songu géej ga bu mu la bett lii lépp misère moo leen ko yóbbee lii lépp échec moo leen ko yóbbee de l'autre côté ñu gis ay ñu ñu tekkiwul dara ñu naan ñu dañuy jënd ay appartement deux cent millions dañuy jënd ay oto cent millions ñoom ñoo moom immeuble diw ñoom ñoo moom immeuble moom booy yi fu ñuy jëlati fu ñuy jëlati courage booy yi fu ñuy jëlati lu tax ñu toog ci réew mi lan moo tax ngeen wut yeneen explication tout le monde sait que c'est de Macky Sall bu booy yi jaar ci géej gi daw di dugg ci géej gi te loolu kese doy na motif pour nga bañ Macky Sall li des sa àdduna doo voté lu ànd ak Macky Sall ak lu la Macky Sall bëgg d'autant plus que ñu bu benn waay koo xamante si ni Sénégal koo laaj am na idée bu mu am ci moom par rapport ak alal ji mu yor sénégalais boo ko laaj kooku ñëw nañu lii ngeen di dund nii moom laay continuer su ngeen ma falee mais cest à ay dof lañ koo mun na dund bi koo dégg mun la location bi koo dégg mun la paj mi kenn amatu ci accès koo dégg mun la euh, hôpitaux yi boo fa demee lépp cher koo dégg mun la ndaw ñi amuñu xëy booy ñu ngi jaar ci géej gi dee benn waay ñëw nañu su ngeen ma falee man lii lay continuer waaw mais nag Sénégal toroxal sa bopp nag nit ku yàlla yëkkati nga bëgg a toroxal sa bopp mais loolu saa waay loolu nag nit foofu la mën a yem ci ci ci ci bañ boppam. kan ci ñoom moo war a mën a ñëw taxawati wax lu dugg suñ nopp ñaata yoon lañ ñu wan seenug mbon seenug iyaan seenug dëng seenug jubadi seenug parparloo seenug jéng ñaata yoon lañ ñu ko wan ci preuve yu dul jeex waa léegi au no de lan ñun nit ñi war a waxati sax benn moo salaamaaleykum sax bu ñu ko wax waruñu leen wax waaleykum salaam. ku sàcc sey milliards sa ennemi la un milliard deux milliards trois milliards huit milliards vingt neuf milliards trente six milliards projet bu ne lii ba ne laa ñu ne ko mu yàgg milliards ya seey ñu naan ñu non le projet a échoué mais amul rapport du man du man maa ko lekk projet bi daal xaalis bi daal moo seey ay nit taxaw naan non c'est que projet bi sax baaxoon na mais euh, euh, euh, ni ko doxee di di ko wutal ay lay on par parle plus de projet bi baaxoon na wala du baax xam nga lan la ñuy wax. pourquoi l'argent a été volé pourquoi mu am ay trous de milliards et milliards pourquoi tubaab yi gis nga tubaab suñu génnee un milliard d'euros ne dañuy tabax ab monument boo fa ñëwee un mois après da nga fay fekk un benn monument bu bu bu yor jëmmi un milliard d'euros tubaab yi laa la wax de suñu génnee un milliard ne dañuy tabax ab piscine. soo ñëwee deux semaines après da nga fa fekk un un piscine qui équivaut à un milliard une semaine après wala deux semaines après mais ñun saa waay dañ naan projet décaissé xaalis bi lépp ci turu askan bi ñu toogaat quelques mois ñu ne ñu xaalis ba sey na. ñu naan amul rapport ñu naan ku am preuve génne leen projet yi teg mais waxuñu loolu finalité bi mooy projet ba ngeen waxoon ba ñu génnee xaalis teg léegi ana ana ana ana projet ba ana lam ñu apporter wala xaalis bi ngeen ne dafa say anamu. on parle de ça on parle même plus de rapport wala ñuy wax que ni xaalis non mais ça c'est ça c'est très grave yi léegi kan moo lekk les gens ils ne mangent plus nit ñi dañu xiif nit ñi dañu sonn njëg yi gën a cher xaalis duggul njëg yi gën a yokk ah mais bu leen kenn enchaîné ci li daw leen ci bi ngeen di am tànk daw leen ci bi ngeen di am tànk refusez ça vous n'êtes pas des esclaves ce sont les Sénégalais ni ñu amee papa ak yaay fii ñoom yéen nan ngeen amee papa ak yaay nationalité sénégalaise carte d'identité comme vous li tax ngeen nangoo nekk seen i lu tax ngeen di nangu quelques-uns bien organisés oto bu rafet waaw sama ñetti abdou bi sama costume bi ñu ñëw nga war leen complexé lu tax nga leen ni complexé au nom de lan ban ban ban ban kii lañ la wan ban valeur lañ la wan lu war a tax nga naw la wante ak ñoom si ce n'est des voleurs wala des gens qui protègent d'autres voleurs non waroo leen nawle woo waroo leen sax déglu foo leen dégg na jub bu ñu ñëwee nan la ay parrainage yu mel noonu nga dàq leen ci xaj c'est tout nga dàq leen ci xaj parce que du ngeen ay jaam juruñu leen pour ngeen nekk ay jaam kañ ngeen nekk ay jaam seen biir dëkk su fekkoon dëkku jàmbur lañ ñu teg leen pression on peut comprendre que ni dëkku jàmbur ngeen nekk seen propre dëkk booy dañuy yeewuwaale léegi cette peur cette peur laa dañ koy yeewuwaale journalistes yi ñii ñu ngi leen di caxabal ñii ñi ngi leen di topp à la loupe di xaar benn mot de travers ñu jëli leen mais ñun ñëpp dañuy seetlu ana yeneen journaliste yi ana Madiambal Diagne qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'est-ce qu'il n'a pas dit moom moom Madiambal Diagne ah qu'est-ce sur la mort des des gendarmes Bah Diakhaté qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur la mort des gendarmes Madiambal Diagne qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les sur les juges le juge là bu jugé woon l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bu njëkk qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur sur ce juge c'est un journaliste mais les autres c'est des journalistes ils sont les autres journalistes ah mais regarde les Pape Alé yi tout ça la pression qu'ils vivent seen famille seen ay doom seen ay mbokk Pape Alé Niang bu xëyee këram wóoru ko ndax dina dellu si waat buy dox mi ngi gestu parce que xam na ne ay RG ñu ngi koy topp wala.